man maanaam dafa am ab néew buñ fa gis rek noonu noonu noonu euh, comme problème mu Cheikh Béthio bi la lay xaw a jox waaye demeewut noonu euh, sëñ Moustapha si benn taalibeem la lañ fa rob euh, ku ñuy wax Kaatim Touré foog naa biñ ne suba la julli ko rek yaakaar naa la faatu woon léegi ñu dencoon ko fa yaakaar na nag ay problème mu suuf si yaa ko moom ak nangam nangam foog naa ne moo tax gaa yi sulli ko daal am am ñu sulli waaw. waaw loolu moom sëñ Moustapha moo joxe woon ndigal loolu ne nañ ko barab ah sëñ Moustapha si boppam moo ko barabal boppam comme kër gu yaato yaatu la rek comme sëñ Cheikh même moom xam nga bi mu moom tamit si benn këram lañ ko rob noonu la demee rek. waaw gëstu naa ko. waaw ki nga xam ne waaw mooy dox mu amee may wax góor gi la moom laa koy wax moom laa jot tabaarakallaahu waaye daal nee na moom kër gi comme li sëñ Moussa wax ci audio bi góor gi mi ngi kayitam yëpp waaw kayit yëpp mi ngi fi waaw parce que moo ko moom moo ko moom moo ko mooy tam pour ñu denc ko fa parce que moo ko moom waaw moo tax dalal xel yi rek. incha allah yàlla baax na ñoom dañuy tappaas moo tax mais yàlla baax na. Euh, juste que information la waaye comme ni mbokk bi wax rek information bu tiis la bu naqari boo xam ne kenn kenn yaakaaru ko woon ci àdduna ne nit euh, woowee na noonu xol ne nit soxoree na noonu ne nit mën na tooñ ba àgg foofu kenn foogu ko woon ci àdduna moom ah man boobu. su ko defee suñu góor gi tedd gi ndeysaan Pa Katim Touré nga xam ne lu nekk daj na ko ci daayira bi lu nekk daj na ko ci tariixa bi lu nekk lu nekk tabaarakallaahu noppalu ñu denc ko jour korité ay saay-saay yu bon organisé wu nañu ba euh, sulli ko fañ ko suuloon yóbbu ko ba fii ñuy wax ak yéen ni nag ci lu ñu mujj am ci information kenn xamut fan lañ ko yóbbu kenn xamul fan la nekk moo ki yenn nat ci élément sécurité yoo xam ne man def naa le tout pour jot leen mais kenn ki rek laa mujj a jot donc loolu euh, lu métti la daal laa ci xam ne xam ne lu méttee ngi noonu nag ñu amoon góor gu mag gu baax goo xam ne liggéey na lu ne nga denc ko ñuy xëccoo naan la ay ay fii suuf laa fii suufa jàmbur la te Serigne Moustapha mille neuf cent quatre-vingt ma quatre-vingt-deux su ma mi ngi waxtaan espace boobu mu amoon noonu ak ñu doon sax ba ma Maodo di ko wax na ko xaw ma waa kataas lañ xaw ma am nga am nga foofu suuf xaw ma ba fële ñu denc Serigne Cheikh nga xam ne Ablaye Fall bu njàndoxum su ma juumul moo ko mayoon sëriñ Moustapha ak Serigne Cheikh Serigne Cheikh doon ca bay lu yàgg la euh, waaye rek euh, góor gi lu ne jàngal nañu ko ci conférence mujj bi waaw ñaar yu ma waxoon ne noon bu pexeem dul jeex ak wujju xolam dul féex kuy ba bàyyi ko xel ko yooyu bu bàyyi ko xel wax dëgg yàlla euh, laylatul xadar bi lu nekk góor gi junj nañu ko wallaahi lancim euh, ba tax na daal mu ngi noonu euh, loolu moo fa nekk ci loo xam ne nag naqari na lool su ko defee maa ngi